السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبقى أحمد دام سيسة نيجي دل سوات جسون تيري بينا خمنا ممن باخوان دي بجانغ سم دي بنيك ميطلعت الأنوار في علم آثار النبي المختار نيجي ورا تنبليتي وقبل لإطلاق لصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد فوفلين ورتامبلي وبصحيح حسن أقواله وبصحيح حسن أقواله في كلها قد ظهر اختلال ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتقد وبتردد لوصف من نقل عن صحيح ذا الأخير قد نزل <coughs> برمتير بنينا وقبل نغنغو لإطلاق النيل أجيال جو قمنا دفع أم لصحة السند جيروك سند با سند حديث بي أو حسنه ولا رفتك سند با لول ميلان ماي لك لك دنجيسي محدثون ينو قمنا سجنت لي أب حديث دنجيس نيوان هذا حديث صحيح duñ wax saxiixun rek yem ci wala ñu ne xadiisun xasanun yem ci waaye dañuy ñëw ne xadiisun saxiixun isnaduhu wala ñu ne xadiisun xasanun isnaduhu léegi suñ ne saxiixun isnaduhu dafa mel ni kon li muy jinji mooy sanat bi rek moo wér waaye matnu bi moom daf caa noppi waxu ca dara su ne xasanun isnaaduhu dafa mel ni sanat bi ci boppam mo nek lo xamne amna darajatul hasan faqat waye matn bi mom daf ci anopi waxu ci dara atew ci dara leg leg mu am léegi nak su boba lan lañ ko war a àtte xadis boo xam ne dañ ko nettali xadisun saxiixun isnaaduhu wala xasanun isnaaduhu wala sahih sanaduhu wala hasan sanaduhu ولا صحيح الإسناد ولا حسن الإسناد <coughs> بوب لا وخنا وقبل نغا نانغو لإطلاق نيال أجوال غوخن من دفا أم في حديث لصحة السند كي ويروك سند با أو حسنه ولا رفتك سند با su fekkee dañ ko dañ ñu wax rek ne hadith un sahihun isnaduhu loolu lala wax ne su boobaa noppi ca nu ba mat nu ba àttewuñ ca dara àttewuñ ca ndax xasan la wala saxiix la wala daif la waaye def caa noppi moom sanat ba ci boppam moom rek la àtte su boobaa moom la la wax ne mat nu boobu itam danañ ko àtte ci àtte bi nga xam ne moom nañ àtte sanat ba mooy su fekkee dañoo wax ne sanat ba saxiixun su boobaa nu ba danañ ko àtte xaale sixatu su fekkee dañ ne xasan la ba tey mat nu ma danañ ko attaale xasan kañ nag in kaana nem nekk na mi man tukkee ci imam boo xam ne yutamadu def na sukkandiku ci moom su fekkee dafa jógee min imaamin xaafidin yutamadu alayhi loolu la bëgg a wax su fekkee kim jógee dafa nekk koo xam ne mutamad la kuñ sukkandiku la ci fànn bi su boobaa moom hmm, itlaax gi nga xam ne moom la def ca sanad ba noonu rek wala ca matnu ba du tere itam danañ ko nanguwaale waqbal mooy na nga nangu maanaa mooy mooy matnu ba ca boppam yuxkamu alayhi bil qabul dañ ci àtte ne maanaam danañ ko nangu qabul nag maqbul mooy xadis boo xam ne saxiix la wala xasan su fekkee def na saxiix su boobaa danañ nanguwaale matnu ba ci matnu ba itam dafa nekk loo xam ne lu wér la wala danañ nangu xaale matnu ba ci ne xasan na su fekkee dafa xatee ca sanad ba ne sanad bi xasan na moom la waaye nag kañ la mooy su fekkee daf ko itlaaq noonu rek waaye gannaaw ba mu waxee saxiixul isnaadi wala xasanul isnaadi tuddut ca dara amma su fekkee daf noonu xadiisun saxiixu saxiixul isnaadi wala xasanul isnaadi gannaaw ga nag mu tudd ci matnu ba loo xam dañ koy naqdu koku mom su boba matnu ba kenn du ko atte ci atte bi nga xamné mom lay atte sanad ba kon bañ koy wax moy dafa itlaq ci sanad ba rek waye matnu ba jaba pom mom daf ci noppi atté wu ci dara amma su fekke dem na sahih al saxiixul isnaadi hasan al isnad waye nak wax ne wa fi matnihi kada wa kada koku mom su boba matnu bobu dañuy topp atte ba nga xamné mom la atte ci gannaaw bam atte ci sanad ba ba pare rek ndax dañuy wax ne al aslu adamul qadih lay cosaan mooy ñàkk qaadix mooy loo xam ne day koccal xadis bi wala lu koy aybal kañ nag in kaana nem nekk na min man maanaam min imaamin xaafidin yutamadu alayhi su fekkee dafa jógee ci imaam boo xam ne xaafid la koo xam ne kuñ mën a sukkandiku la kon loolu daal ci gàttal mooy li bëgg a wax ci bayti boobu am na ay tafaasir yu bari yi ci nekk nag wa fi saxiixin xasanin aqwaalu fi kulliha qad dahara ixtilaalu summa aljawaabu bi tanawwuci sanad li xasanin wa li saxiixin muctaqad mu ne wa fi saxiixin nekk na ci saxiix ak xasan aqwaal maanaam mooy dañuy gis ñenn ci muxaddisuuna yi rawatina ñu melni imam imaamu tirmidi ak ali ibn madini leg leg ñi xatte ci ben hadith ne hadithun sahihun hasan maana hadith bo xamne dañ ko atte ñaari atte ñi ne sahihun saxiixun wa waxuñ hasanun faqad yamja ca waxuñ sahihun faqad yamja ca dañ ne xasanun ñaari atte yoyep ñi tekku ci ab hadith tirmidhi dama koy def légui nak su boba lan moy atté lolu lolu la bëgg léral leeral wa fi saxiixin xasanun aqwaalu ay wax yu bari bari ci borom xam-xam yi wax ñi tawilé ko ni ñi tawilé ko ni ñi tawilé ko ni motax nak mu ne fi kulliha qad zahara feeñ ikhtilalun ak yaq fi kulliha ci mboolem wax yi waye wax yi ci borom xam-xam yi wax yépp da naka wax bo ci top rek danga koy fekk xalal danga koy fekk ak fasad muy ak yaq أنا wax jo xamé dal du mucc ci atrab moy du mucc ci dingat ko ak euh, corriger ko kon صحيح حسن أقمنا بين حديث وغنى حديث صحيح فقط ولن حديث حسن فقط وأيضا نعم حديث حسن صحيح لولو لكن برم خمخم تاوي taawil ko ñii taawilee ko nii ñii taawilee ko nii ñii taawilee ko nii wax ja bari torop mu walla na la fii kulliha qad zahara maanaam wax yëpp daal daanaka boo ci topp rek danga fekk xalal danga ci fekk ak yàqu ak salaama ah, adamu salaamati min al i'tiraad da fekk ne du mucc ci i'tiraad daal mën nañ ko diingal mën nañ koo corriger lu dul benn jawaab boo xam ne daal jawaab boobu moo ci gën a wér moo ci gën a rafet moom la bëgg andi suma aljawaabu bi tanawwuci sanad li xasanin wa li saxiixin muctaqad wa bi taraddudi li wasfi man naqal wa an saxiixin wel axiiru qad nazal suñ ko bëggee tontu nag moo tax mu ne suma aljawaabu tontu topp tontu ga nag mooy suñ ko bëggee tontu daal la nga xam ne moo ko tontu dëgg bi tanawwuci sanad waaw balaa ñu yegg si foofu xam nga su fekkee tirmidi dafa wane xadiisun saxiixun xasan wala mu ne xadiisun xasanun saxiixun loolu dañuy wax ne dafay dafa am lu ñu tuddee ijtimaawu isbaatul qusuuri wa nafihi fi xadiisin waaxidin te loolu mantu nekk am nga xasan xadiisun xasan ku ñu xam ne ne yeggut ci darajatu sixatu mooy xadiis bi nga xam ne dafa nekk xadiisu saxiix su fekkee dafa ñëw ne xadiisun xasan ñi xam ne كي قاصر عن درجة صحيح موي حديث بي يغوت درجة صحتي كون لولو قبل نكو بفري مول بتي كو تيغات صحيح كون سو بابا دا فمن لم داقون موم لول بتي سخالات كو كون مسخالات ني يغنا جي درجة صحت لكن اجتماع اثبات القصور ونفيه في حديث واحد لولو موتخ أه دنگا hadith bi xaw a am problème maanaam wax joju xaw a jaaxal borom kum xam yi kenn ku nekk taawilee ko ni kenn ku nekk taawilee ko ni waaye kii nag moom sidi abdullah def na fi kulli qad zahara ixtilaalu ndax suñ ne xadisun xasan kese yem ca su boobaa dañ naan xadis bii de yeggut ci darajatu sixa mu tegaat ca ne xadisun xasan mu mel ni lam dàqoon ci lam ne xasan soxalaat na ko saxal dara ba dàq dara ba saxal dara ba pare wëlbati ko dàq ko wala dàq dara wëlbati ko saxal ko loolu day indi muskila léegi nag wajul bi nga xam ne mooy wajul iskaal bi mooy loolu li nga xam ne moo ko xallu nag summa aljawaabu bi tanawaa sanad li xasanin wa li saxihin muctaqad moo nekk loolu summa aljawaabu topp tontu gi bi tanawaa sanadi ca xeetoog sanad ba li xasanin jëm ci xasan wali saxiixin ak jëm ci moo saxiix mu'taqadun lu ñuy fas la mooy yenn ci borom xam-xam yi dañu tontu ñu ne te tontu boobu mooy li nga xam ne moo ci gën a wér moo ci gën a rafet itam mooy xadis bi su fekkee dafa nekk xadis boo xam ne sanad bi dafa xeetoo nga xam ne dafa am lu ëpp benn sanad am na ñaari sanad wala ñetti sanad wala lu ko ëpp daal lu mu ci mën a doon mooy sanad bi dafa nekk sanad boo xam ne mutanawwi la dafa am sanad boo xam ne dafa nekk saxiix am sanad boo xam ne dafa nekk xasan léegi nag mu bëgg a boole sanad yooyu moo tax mu ñëw ne xadiisun saxiixun xasan maanaam su ne saxiixun ictibaar sanad bi nga xam ne moo nekk sanad bu wér su ne xasanun ictibaar sanad bi nga xam ne moo nekk sanad حسن كون حديث بدا فنيك آه، سنة أدا ما نم سنة بدا فنيك لو قام متنوي على موي دفا قيتو دفا ام اي فصو اي سنة يو كنك سنة بي حسن سنة بي دفا نيك صحيح ممنك مدالي نيو نت لكونا حديث صحيح اعتبار بن وجهوبا حديث حسن اعتبار بن وجهوبا متغ من يوني حديث صحيح حسن متغ من سمال جواب تبطنتو bi tanawwuci yi ci xeetoog sanad ba li xasanin jëm ci xasan wali saxiixin ak jëm ci saxiix jawaab boobu daal mu'taqadun lu ñu fas la jawaab boobu mooy jawaab boo xam ne jawaab bu ñu fas la ñu nangu la wala ñu ne mu'tamadun jawaab bu ñu sukkandiku la léegi nag su boobaa xadis kon su fekkee ne loolu la bi nga xam ne sanad bi dafa am tanawwu dafa am ñaari sanad wala ñetti sanad wala lu ko ëpp am ci sanad yi yoo xam ne dafa nekk saxiix am sanad yi yoo xam ne dafa nekk xasan su boobaa mu ñëw ni xadisun saxiixun xasanun ictibaar sanad yooyu yëpp loolu xadis boobu nag kon su fekkee loolu lañ wax bépp xadis boo xam ne wax nañ fa ne xadisun saxiixun xasanun te mu nekk boo xam ne sanad yi dafa def tanawwa xadis boobu moo gën a dëgër xadis bi nga xam ne dañuy wax ne saxiixun faqat la ndax dañuy wax ne kasratu turuqi tuqawi mooy bërig ay turuq dafay dëgëral xadis te xadis bi melal nañ ko sixatu melal nañ ko ci yeneen sanad yoo xam ne xasan la moo tax mooy gën a dëgër bi nga xam ne moom lañ jaawaane xadisun saxixun faqat ثم الجواب بتنوع سند لحسن ولصحيح معتمد وبالتردد لوصف من نقل وحن صحيح ذا الأخير قد نزل وبالتردد ci dengi dengi nak li wasfi man nekk na ca meloo ña nga xam ne naqa la ñoo toxal loolu lan moy lan lan moy lolu xam nga daf la wax ne su fekkee sanad bi dafa nekk sanadun mutanawia su boobaa dañuy wax ne sanad bi dafa am sanad boo xam ne xasan la am boo xam ne saxiix la mu ñëw itibar sanad yooyu moo tax mu ne xadiisun saxiixun xasan waaw léegi nag su fekkee xadis biñ gis tirmidi wala keneen ku du tirmidi wax ci xadis boobu ne xadiisun saxiixun xasan dañ ko xol fekk nekut hadith bo xamne mutanawwi ala hadith bi dafa nek hadith bo xamne ben sanad kesse kese faqat la nga xamne leg leg sax mu tekke ne gharib la na'rifuhu illa min hada al wajhi xadis boobu su fekkee nekkul mutanawiya benn sanat kesse kesse kese kese faqat la am legi nak tirmidi ñëw ci ne hadithun sahihun hasan waaw loolu waaw kon nuñ koy laye mu ne kon su boobaa la ñuy tontu mooy xadis bi dafa am taraddut ci bayna aimmatil xadis ñii ne xadisun saxiix la ñii ne xadisun xasan ñii yégale ko ci darajay sixatu ñii déere ñii ne déeret yemale ko ci darajay xasan su boobaa nag ka nga xam tirmidi ma koy nett li ñëw ne xadisun saxiixun xasan maanaam dafa itibaar ñaari kuréel yépp mooy ñëwaane saxiix la itibaar itam ñi nga xam ne dañoo wax ne xasan kon boobu dafa nekk mutaraddid bayna sixati wal xasan kooku su boobaa moo tax mu ñëw ne xadisun saxiixun xasan bii nak nga xam mom moom dafa am dafa nekk benn sanad kese amur sanad boo xam ne sanad bi nekkul mutanawia benn sanad la bii su fekkee ne moom dañ caa wane xadisun saxiixun xasan boobu moom xadis bi nga xam dañ caa wane xadisun saxiixun faqat moo gën a dëgër bii nii lu tax ndax bii dafa am taraddut dégg nga te dañuy wax ne al jazmu aqwa min a taraddut ndax bii sixatu bi dafa am taraddut ndax ñii dañ ne dafa nekk sax yi ne xasan la léegi nag taraddut boobu am ci moo tax tirmidi yi ñëw nettali ko ne xadiisun saxiixun xasan amma bee nag moom nga xam ne moom dañ ca am jëzmu ci ne maanaam xadiisun saxiix borom xam-xam yëpp dëppoo ji moo tax boobu mooy gën a foor bii aljazmu aqwa min a taraddud te bii dafay am taraddud moom la bëgg a tontu ne wa bi taraddudi wa def na tontu dégg nga bi taraddudi ci déng déng maanaam wa bi taraddud maanaam wa amma inda ittihaadihi su fekkee sanad ba dafa nekk sanadun muttaxid fa yujaabu bi taraddud su boobaa dañuy tontu taraddud ne dafa am déng déng bayna sixati wal xasan dégg nga li wasfi man ci melo boroom xam-xam yi nga xam ne ñaqala naqala ñoo toxal xadis bi mooy ña toxal xadis bi dafa am ñoo xam ne dañ ko jàppee eh, àttee ko àttee sixatu am ñoo xam ne dañ ko àttee àttee xasan moom nag mu ñëw ne xadisun saxiix pour itibaar ñi ko àttee àttee ñëw ne xadisun xasan ñëw ne xasanun pour itibaar ñi nga xam ne ñoo ko àttee àttee xasan kon nag boobu dafa am taraddut moo tax mu ne وعن صحيح ذا الأخير قد نزل وذا الأخير بمجبين مويبين قمن سنة بدفنك متحد نكون متنوع ني أتكن حديث صحيح حسن وذا الأخير بمجبي قد نزل واتنا عن صحيح وليس بين قمن لبنك صحيح معنى حديث بين صحيح كذا mo gëna yëkëti ko daraja bi nga xam ne dañoo wax تمنك حديث صحيح حسن تمنك حديث وقنا متحد لا معنى متحد سند لا أما بين قنا سند بلا بنك متنوع عن قنا لبقية تنك نعر ولا نت كوكم مصوبة مو قنا يكتب بين قنا نعوان صحيح لا فقط وهن صحيح ذا الأخير قد نزل كنا نجد لتغوني فوق الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي جيجل وباخ نك في من نك نفقه وقد موتا تمام نك تي توكي سلام